bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa sallama taslima alhamdulilahi lizi allama al insana ma lam ya'lam wasalaatu wasalaamu ala nabiyihi safiyihi la adam wa ala alihi wa sahbihi ma uhmila fawqa al alwaahi wal awraaqi wal qalam suñuy doom yi ak suñuy jarbaat yi ñi ci di góor ak ci ñi ci di jigéen Eh, ñu ngi leen a bëgg a baaxee tuuti ci seenu nekkin ak seeni wayjur ci kër yi rawante naag ñi nga xamante ni bii dañuy chômer liggéeyuñu rawante naag itam ñi nga xamante ni bii dañuy def riyaada maanaam dañuy def sport daal mhm. ci wàllu ndox ak courant ci façon bi ñu koy consommer di bàyyi xel ci suñu boroom indi ji mu ñu indi fii ak ni ñu fiy dundee ak ni ñu war a moytoo lu ñuy wax tuddee yàq dëgg la boo nekkee ndaw nekk ak say waajur donte bokku ñi ci fuqaraaw yi itam ak masaakiin yi donte yàlla mën na leen gan itam bu mu tee nga moytu yàq bu dee ci wàllu ndox ci wàllu setal sa yaram bu dee ci lislaam nitu lislaam et benn wàlliyu buy sangu ñett yoon ci vingt quatre heures du am même sax bu ciy sangu ñaari yoon ci vingt quatre heures du bari xanaa fekk nga war a dindi sobee te loolu cangaayul janaaba lay doon san cangaayul farata lay doon waaye bu dee ak jullite daal ci temps normal sangu ñaar yoon ci 24 heures doy na sëkk te bu fekkente ne da nga def lu tax nga ñaq nga war a sangu xañ na ci la war a doone eh, ñaar yoon ci 24 heures loolu yëpp mën nga saytu sa yaram ba doo tilim doo salte waaye itam doo yàq waaw ndax ndox mi boo nekkee xale eh, donte majeur nga ba am dara itam ba mën a fayal say way ju courant ak ndoxit loolu yëpp bu mu tax daal nga yàq yooyu dañu koy baaxee xale yi courant yi itam noonu waa gis ngeen ni ñuy consommer courant ci façon bu nekk loolu it ndaw ji di ci bàyyi xel pour rek di dimbali seen waajur di leen jàppale te amagu leen lu ngeen leen jox itam mënagu leen a fay courant mënagu leen a fay ndox mënagu leen a joxe dépense itam ngeen yar seen bopp ci façon bi ngeen di dundee ak ñoom ngir moytu yàq te ngeen baal maa ko salaam